d' accord super par rapport ak question boobu euh, yow booy ñëw da ngay reprendre wala da ngay teg sa yëfu bopp. non reprendre ma damay teg sama yëfu bopp. da ngay teg sa yëfu bopp. Mm. Mm. par rapport ak critique yooyu qu' est ce que vous répondez aux Sénégalais. comme li mu wax rek boo bëggee genre egg fi nit ki egg. Mm-hmm. Euh, normal nga jaar fi mu nga essayer di def moom li muy def pour nga mën a après yegg moom fi mu yegg. voilà loolu moo tax ñuy jël tout le temps way yi nga xamante ne ñi nga xamante ne ay waykat dëgg lañ di jël seeni way di ko reprendre pour euh, di mën a xam ñoom li ñuy daj après ñu jaar ñu teg tànk genre fi ñuy teg ñoom seen tànk pour ñu mën a yegg incha allah ñoom fi ñu yegg. alors nous sommes au mois de décembre et qui dit décembre parle d' parle de sortie gis nañ ko ni euh, seen frères yi ñu ngi génn album yi actuellement sortie album yi bari na euh, bëgg naa ci am seen lecture mais aussi vous donnez votre agenda ci euh, mois de décembre bi Aïcha d' première lecture sortie Pape Diouf sortie ki nga xamante ne moom mooy Wally Seck Youssou Ndour génne Djiba génne jot nga ko déglu ban voilà jot naa déglu vraiment j'apprécie mhm. album yëpp laa apprécié mhm. voilà album yëpp laa la la apprécié incha allah di ko déglu mhm. di di ci di ci di ci jël ay kii daal am nga ci coup de cœur ñëpp hmm. laa bëgg daal. ñëpp nga bëgg album am naa si am si kii lébu bi mooy sama way bu Pape Diouf moo ci gën moom waaw Bouki Bouki Youssou Ndour ok Djiba votre relation avec Djiba. Euh, ma relation avec Djiba. bon on se connaît pas. Ah, vous mais quand pas. même j'apprécie bien ces gens. ok mm. euh, album yow aussi même appréciation ko aussi. déglu na album bi c'est top. c'est top. Mm-hmm. dem si guddi lañ ko doon déglu ci oto bi dañoo taal teg ñu doon déglu son yi mais mu nekk lu nice macha allah ñu ngi ñaan yàlla ñun tamit am lu mel su baax ak si ñoom daal la ñuy rey dañuy tëju ci oto yi di déglu seen way yi de. da ngeen ok si dañuy déglu dañ koy yokk ba mu foor. amoo leen ci kii bu génne ngeen déglu si amuñu ci kii la ñuy déglu ku génne rek la ñuy déglu Pape Diouf Youssou Ndour mm-hmm. Titi Viviane ñëpp la ñuy déglu parce que ku toll ci jàng moom. Mm-hmm. ñëpp ngay déglu. Mhm. mais ni ko gisee ci yéen ngeen nekk ay xale booloo di def euh, di génn son muy cartonné euh, bëggoon nañu gis aussi benn all star boo xamante ni ci senior yi la maanaam Viviane euh, Titi ak ki nga xamante ne moom mooy Aïda Samb est-ce que aussi yéen tamit leen lan woowoon comme yi vous êtes nekk ngeen ñaan leen ngeen leen mais Titi dañ bëggoon nga def Tata Vivi nga xamante ne moom mooy Tata Aïda Samb loolu dina garaaw de. man moom Viviane ah. laay defal featuring. yow di nga def eh, featuring ak Viviane. <laughs> non kii. Mhm. Zeyna gérer ma lool. Mhm. foog ma def ak maman featuring. Euh, super peut être moom mën a woote. kan loolu laa bëggoon laa bëggoon laajte kan mooy kan mooy kan mooy mooy rabu groupe bi entre guillemets si je peux m'exprimer ainsi kan mooy kan mooy ruube kat bi ci biir groupe bi. moom moo gën a wéet bu nekkee wéetaay moom euh. mooy gën a wéet. moom bu wéetee day wut ku ko wéetali moom yoonam si yow fan nga nekk foo nekk day yëg saa yoo oh, allo foofu nag est-ce <laughs> moom mooy ruubekat bi ah. non yi bëri na. ruubekat bi gën a mag nag. Uh-huh. mooy jaar. jaar mooy ruubekat bi. jaar mooy ruubekat bi eh, boo gisee noonu ak kanamam bu xaw a neex seet. Uh-huh. ruubekat la. ruubekat la ndaxte tamit ruubekat la. ndaxte ruubekat la ndaxte aussi ruubekat la. groupe a nekk. fan yi neen daa xaw a parce que am na jëkkër. du fekk jikko borom ba ci biir ba ay rubekat lañ <laughs> après xam naa dinañ ñëw aussi ci loolu ci li nga xamante ni moom mooy mariage yi parce que ah. comme li ma ko waxee sànq euh, di doog a découvrir euh, à travers euh, Sen Petit Gallé vous étiez des enfants entre guillemets ay xale yu ndaw mais aujourd'hui vous êtes de grandes dames donc ba am na ñoo xam ne ci yéen marié wu nañu aussi mu nekk loo xamante ni tamit les Sénégalais se posent la question Aïcha Koné à quand le mariage Bintou à quand le mariage comme que temps yi mariage doo xew biir Sen Petit <laughs> boobu après ñu jàll ci leneen rapidement par rapport waaw man parce que ñu génnee bu amee kenn ñaar rek ñu ci dem rek boo moytuwul seen ginnaaw mu tàng ñu ci des topp ci. joxel dat man ma dat de. l'essentiel daal ma mën a wax mooy que. ku sa sa sa heure bu dem. ndax ñoom ndaxte jëy laa seen heure dafa jot ñu dem ñun suñu heure bu jotee dinañ dem. seen heure bu jotee dina dem. waaw. Hmm. Hmm. <laughs> léegi rek incha allah yow. léegi rek incha allah <laughs> léegi rek incha allah maa vidéo bi ngeen jël ko. non nga faaw nga faaw nga jox ñu ko alors. Euh, par rapport à la carrière euh, que vous rêvez euh, parce que ku xam que ni la vie d' artiste n' est pas du tout facile carrière bu gudd la. Mhm. le mariage ne peut pas nekk benn benn handicap benn benn loo xamante ni benn obstacle lay nekk. ci sa carrière nan ngeen ko jàngatee par rapport ak boole mariage vie de famille ak nekk aussi di def musique est ce que lu yomb la. bon tôt ou tard tamit si li parce que ku nekk ñaan nga yàlla sax si sa liggéey te liggéey boobu ngay def ñaan nga yàlla ba sëy voilà am say doom voilà tu gères bien ta famille et cetera alors euh, il faut savoir nga aar ñan parce que on est des femmes aussi. ragaloo leen la lu vous êtes prêt à allier les deux mariage ak euh, euh, vie professionnelle musique bi. mais loolu la ñuy def tôt ou tard alors du loo xamante ni da nga ko war a ragal da nga koy ñeme rek. da nga koy ñeme <laughs> Bintou qu'est-ce que tu réponds à ça. yàlla baax na <laughs> moom yàlla baax na. maa ñemeetul fi mu ne nii. <laughs> day wax ay yu rëy. da nga ñeme damay wax lu rëy. Mm. te du ma ko tey. mais bind femme nga <laughs> euh, bi la génn ci boppam. Sénégal foofu boo leen fa génnee après ma ñëw. waxtaan leen ci loolu ba pare. waxtaan leen ci mariage ba pare bu ngeen paree ba jàll feneen may doon ñëw parce que mariage moom dootuma ci waxati. fi ñu dugg <laughs> suñ dugg baaxul alors euh, nous allons parler aussi de Prince Art liggéey euh, bi ngeen fay liggéey parce que quand même on voit que c'est un travail euh, de professionnel yoo xamante ne da ngeen koy amal seen relation aussi ak Tata Ngoné ak liggéey bi comment ça se passe au sein de Prince Art est-ce que le groupe a toujours évolué ci en tant que groupe wala est-ce que ku ci nekk après tu vas faire ta carrière solo parce que yow je connais tu as sorti des singles Bintu amagoo single mais est-ce que loo ci yow par rapport ak sa carrière est-ce que tu vas dans le groupe wala est-ce que mën nañ dem ba xaar Aïcha Koné comme ni koy gisee de temps en temps nga génne benn single en carrière solo. voilà groupe la par exemple euh, génne naa sama single maa ngi def sama carrière solo mais teewul bi ñu waree groupe waat pour génne euh, way en groupe dañu génne way en groupe alors ça fait toujours. ñuy ñu génne way en groupe mais teewul ku nekk am nga sa carrière solo am nañu suñu ay projet incha allah ñun ñi nekk si groupe bi yëpp dañuy génnee suñu suñu suñu suñu propre single am suñu carrière solo parce que label la avant tout. Mhm. donc label la avant tout mais le groupe la carrière solo c'est comme ça si je comprends bi moo jiitu de temps en temps ngeen mais bon xam nga groupe bi. Mhm. moom lañu débuté. Mhm. ñëpp moom la ñu xamee. ci lañ doon génnee suñuy way ba ñi ñu dañu xam. voilà. de du du ñu génnee suñu carrière solo nag bàyyi groupe bi heure bu xamante ne santé nañ ko ñu war a bégal suñu fans yi mhm. ñun dañuy defaat suñu groupe waaye leen mais teewul ku nekk tamit di nga di nga def sa carrière solo. ku nekk di nga su baax su baax Bintou toujours pas de single lan la la mooy problème bi. dama comment genre maquette naa ko. Mhm. enregistrement bi moo ci des ak quelque réglages yu ñuy mhm. def. voilà ak dolli dolli waat. ok mais c'est déjà enregistré. Mm, maquette naa ko waaw. maquette nga ko waaw ah. des na enregistrement bi. des na enregistrement bi